alaaji may paa nag xaw ma sama grand frère. Hmm. nee na daal daanaka du yëg boppam. wala bu koy yëgit day gaaw lool. da moom nag nee yàgg na ko seetlu ci moom. yàgg na koo seetlu. tey dina ñëw ci li ko ko teg lépp eh? teyit solution la bëgg ndax madame moom muñ na mënta muñ ñaan na baat dem na yoonam ah, te dëgg dëgg bëgg na madame del siwaat te ba dëgg dëggit bëgg na lii ko dal mu den ci moom ah, dafa gaatu ko muutuwaale nag non ah, mais nag mais déet bu dee seet bu bees ah ah pour le meilleur et pour rawatina mu nekk xale waaye nag waaye dem. waaye su la jugé. waaw c'est ça nag peut bu fekkoon mu ngi fa dëj ba pare mm. di jàdd gauche wala droite ah di ko lijjanti ndax mënu koo muñ. Mm. Ah, parfois dem bi day nekk solution. dogal la boo xam ni da koy jëlal boppam de. parce que tamit. papa daal yaakaar na leen ci solution alaaji. yaakaar nañu waxuma la sax yëg boppam. waaye dafa bëgg bu yëgee boppam it. mu yàgg ca. waaw kay merci may ba fekk woon. may appel appel bu yàgg daal la bëgg. boo fi amul woon. bippe lay bañ. c'est que man damay bëgg di wax loo tax. chimère. doo wax nga lépp. ñu ne. ma ne. ñu déglu papa ji dañoo changé voix bi nag déglu alaaji chimère benn question kay mantu. ayca. bu dee paa la laa wax. laaj ni muy waxee dama changé voix bi nag mais. bu dee paa nga nag gaañ naa la tegal naa tegal voix bi normal bu ma changé woon nga déglu. waaw asu nekk naa nit bàyyi nga ni jabar ji dem na. mais li tax jabar ji dem mooy. mooy paa day yoo xam ni. du bu ko yàlla dimbalee ba mu yëg boppam. yëg day gàtt. ok. Ah, moom it nag. soxla si est-ce que loolu nag jar na dem yow. Ah, comme ah, naa ne garaawul quoi jarul woon. mais mais loolu ah, mais loolu sax jigéen ñu bëri nga toog fii di ko muutuwaal. waaw mais c'est pas parce que ñëpp a ngi koy war muñ te am na kenn koo xam ne war na ko muñ ci koñ mais man neen bi sax laa doon bañ mais comme ni parfois mu. mais maay pas tamit lan la takk moom it. parce que takk tamit xale. ci lii muy jànkoonteel nii tamit ah beneen problème la de. mais mënoon naa faj ba pare tam kon. bonne question. ah que xale la takk. est-ce que xa. bonne non gëwma mu nekk xale parce que loo xamul doo ko namm waaye loo xam tamit na. en tout cas daal xale. moo lay jaral ngay dem di ji feneen. ak bu ah. demee ba. béy daal day ànd ki moroomu béyam. Ah, waaw su bëggee mucc ci cere. prof Ndiaye ko wax. yow bu fekkee mënoo dem ngaay yow nga takk koo xam ne nii dina daan Tambacounda ñëw. mais est-ce que tamit lool la takk. en tout cas en tout ci benn certitude. leeralul foofu mais leeralul foofu ay ay ay xëcc rek di dañuy laaj rek. moo tax laaj foofu laaj ma ne ko bonne question alaaji laaj ma ne ko très bonne question day gàttal fanu jigéen de euh, gaaw a kii ah maanaam daal di kii bi même pas une minute nga kii wala une minute ah. mooy de mooy de trois minutes hmm. wala mooy de cinq minutes hmm. sama magum géwël danañ ne ma day day gàttal fanu jigéen. Mm-hmm. ak fi mi toll nii nii nii. Ah, kon de kon jigéen ñu bëri dinañ fàtte xale yu bëri. day tax nga xale yu bëri baat bi wàllu di wax suuxa. di suuxa boo ko déggee mooy. mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy doo doo doo doo mm-hmm. mm-hmm. dem ba tëj la finalement dootoo yëg ndaat saay benn. ñaare bi ci des. da lay tax mel ni ku lekk toujours te fekk lekkoo amoo amoo appétit da ngay rek ku la gis naa lu la dal wax damaa bëriwul lekk naan ay doom naan ay comprimé mais toujours da ngay da ngay laan. da ngay da ngay gis te doo lekk. xam nga tëddee ponkal mu toll ni yow te li nga soxla mënu ko ci yow. Mm. waaw xemem tif googu da lay tax a laan. Mm. muy ñaareel bi ñetteel bi ci des stress bi mi bi mu lay teg. parce que stress da lay dugal diggante gi parce que doo dem wuti ko faneen sañoo ko. te sama xel a ngi si. te yaa ngi koy soxla. waaw ñeenteel ba nee mën na laa indil ay tawat. ndax yenn saa yi nga koy jéem a dabu ji say baalaam. waaw loolu lu nekk xaj na ci. waaw bu fekkee ngay poser ay we. mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa poqati ko. yooyu yëpp boo ko dajalee. moo tax sama mbokku jiwal nee na ma waaw day day day day day gàtt day gàttal fa nu jigéen moo tax nag yenn saa yi ñu ñu ci jigéen fekk na nag koo ci yedd tooñ ko mantu naay mantal dugal sa paa bi sax aja hmm? léegi yow nga ni da am jafe-jafe kër. waaw dama am jafe-jafe kër maanaam ci naka. pour dama amoon soxna mais maam soxna si maam damaa demoon ba la ma ci mënal. moom moom mënatuma ko. léegi ma am ci jaaxle lool nag maam fu nekk moom moom maam ñaan loo naa ko fii nii mënuma ko ay affaire maam rawaan daal moo ma dee maanaam soxna si li nga ci manoon ci wàllu dépense wala ci wàllu jox wala ci wàllu def-def ci kaw lal bi maanaam ci wàllu def-def ci kaw lal bi léegi la ma ci mënoon noonu moom la mënatul kan moo la wax ni affaire da rawxaan la ba nga am ci njortu noonu moom ma man ñi ma ko jotoon di kilo ak ñaan loo ñoo ma ko wax jotoo dem hôpital da nga daal di dem ci ñaankat yi waaw ci ñaankat yi laa doon dem waaw kañ ngi la doon yoot avant mu lay dab ma bi soxna si maanaam commencé ñëw moom moom moom moom ci la ma gën a attaqué nag soxna si jotoon na sëy si waaw jotoon na sëy si waaw avant soxna si doon ñëw yow yaa ngi doon yëg lu mel noonu waaw daanaa ko yëg waaw lan moo teewoon booba nga faju d'abord avant mu doon ñëw waaw mais mais man passantan rek la ma daan dikkal kay néew kattan en général mooy koo xam ni la mu mënoon dafay wàññeeku waaye fi mu toll da mënatul dara ci jigéen wàññeeku waaw. day wàññeeku wala da nga cee dara. waaw waaw day wàññeeku mais du production maanaam dama dem maanaam bu tële ko loolu loolu. yenn saa dina ñëw yenn saa du ñëw. te itam dawoo di faral di fowe sa bopp bu jural la lii tey. waaw daanam faral di dikkal léeg-léeg waaw. fowe sa bopp. waaw bu yàgg waaw. est xam nga ni lu mel ni gàllankoor nañu bari. te jamono yi ngay fowe sa bopp sa xel mësul dem ci jóg faju ji tey ba jural la néew kartan nii ba sa soxna dafay ñibbi. dëgg la waaw waaw. la toll. non boobaag léegi ay kii toll rek maanaam dafa dem ba xam ne mënal lawlal bi mu préféré ñaan baat dem ñibbi wala dafa tas rek dem noonu. ah, ah waaw maanaam dañoo tàqali ko complètement bi. mooy sëy amatu fa. waaw mu dem euh, message la nag pour yenn ci xale yu góor yi ndax kartan moom boo ko amee da koy fonk. ni jigéen war a fonke boppam ci njàng ba du ba bu duggee ci néegu sëy mën a exploiter la mu ci sëyam la góor war a def rawatina xale bu góor bu ànd a kartanam di góor di ko yëg bu la leeree ne yaa ngi góor di ko yëg rek na góore da nga téye sa bopp ba suñ borom dénk la soxna nga bañ a sa bopp muy wàllu néew kartan waxoon nga ko ci sa biiri kàddu ni day dem ak a ñëw te dem ak a ñëw googu nag la soxna si mënatu la supporter waaw waaw waaw ma dellu si waat ci jot nga dem hôpital ndax naa cee dem bu yàgg mais ma dañ ko xoolee dañ ne ma lii nii moo koy faj waaw ñoo koy faj waaw sëriñ moo waral say tànk nga ànd ak sa xarit ñëw ba fi ñaankat yi nga jot a dugg ci dëkk bi est que jot nga ci am résultat waaw ñaankat yi kay maanaam ñi ma ci doon dem ma bari na lool kay kalaasu simière gi ngay dajeel hmm, a bari na amoo ci benn résultat a ah, déedéet d'accord man jeex soxnaam ba soxnaam ñibbi. moom nag wax dëgg yàlla leeralawu ma ko. boo damaa damaa wax nii loolu dam na ko rek waaye waaye leeralawu ma ko comme ça ne ni ko leeralee nii leeralawu ma. maanaam dala ko wax ci sutura. waaw ah, dama ko wax ci sutura rek waaw ne ma la ko léegi yow nga toog waxtaan ak moom mu wax la lan. waa léegi bi man kay ma damaa woo téléphone ni ma. ni ma ni ma dama bëgg nga yóbbu ma ci Zik FM. ma ne ko waa garaawut. man loolu moom bu saw yàlla dinaa ko man ndeysaan waaw moom boo ba mënatoo moom dañ la fi daal di bëgg a tege te sëy du loolu soo ko mënee muñ rek jaamu ci yàlla waaye dafa nekk lu jafe ana lan ngay euh, tàggatoo ci say kàddu maanaam kay man li may tàgg sama kàddu mooy ku ma ci dimbale maanaam te yàlla tax rek maanaam man kii nga mën a yëgaat sa bopp dem gi muy dem bañ a am waaye yëg nga ni carrément yow góor nga waaw mais maam loolu maanaam dafa may faral dem dem ak dikk gi daal moo la naqari doonte góor nga waaw waaw waaw te foo dem ñu la wàllu noonu li ëpp solo rek mooy nga gën a farlu tey làmb bu yàggee di nga daj di ñaan yàlla suñu borom mu teggil la ko ndaxit it ki musula xam lu jëm ci jigéen kooku du kaa bi waaye ki xam moo ki amoon alal ñàkk buy amaat dina xam lan mooy ñàkk ana lan ngay dénk ñi nga xam ni ay xale yu góor lañ tey fowee seen bopp waaw li ma leen dénkee mooy maanaam moytandiku loolu rek waaye c'est que mbay tamit dama ko bëgg. mbay ñi ñëw li ñu waroon wax yëpp moom moo koy wax. waaw moom commenté wax na ko interroger na ko commenté moom mooy laaj mooy commenté. c'est vrai lu muy wax. parce que après dafay. c'est dégg nga paa bi li ñu li mu waroon wax ñu comprendre ko yëpp mbay ko wax. ndax question yi léegi mbay est-ce que doo enregistré waat paa bi bàyyi ko mu wax ñu dégg li muy wax. waaw mu gën a kii. nee na ko muñal bi loolu bokk ci. <laughs> daa bëggoo jëkkër waaye boo amee jëkkër. kan la. ki may waxaat nee na muñal bi moom loolu bokk ci moom. mais <coughs> mantu la. <coughs> Alaaji. Hmm. man ñaari jàngat laa am. Hmm. benn mooy Alaaji kii di wax. Hmm. man de ab mag la may nuróol Alaaji. te nag alaaji nit moom munoo màgget ak sa doole. doo machine. ah mun nekk. Mm-hmm. loolu benn la. Mm-hmm. parce que looy màgget sa doole di gën a wàññeeku. Mm-hmm. munoo na nga tolloon ca vingt ans vingt cinq ans na nga koy defee nga bëgg ko defee boo amee soixante ans ak boo amee soixante cinq ans munul nekk. xam nga yàlla de. <laughs> loolu problème beneen bi soxna si bu fekkee ne waa ji comme na mu waxee mun dafa mënoon mënatul. moom loolu waru ko def di ko dem di ko bàyyi ndaxte bakkanam mhm. ndaxte nag da wax sëy pour le meilleur et pour le pire la da ngay mais est am nga droit tamit forcé soxna si mu toog déedéet non amul ah, non man man dama décision boppam la aussi waaw non d'accord bu fekkee ne ne est-ce que amul yeneen motif yu tax ndaw si dem moom nee na lii la donc loolu lañ mën a jàpp pour l'instant ba keroog peut-être ñuy dégg leneen ah en tout cas daal gore moom gore rek gis nañ fi ñoo xam ne seen i boroom kër ak AVC gii nga xam ne daa sonal nit ñeeg yeneen mhm. xeetu feebar ay jabet ak ñoom seen ñu toog mhm. la ca bëri mënatuñ ko ci wàllum si mhm. mais teewut seen soxna ya ña nga toog nekk ñoom ci loolu tey muñ booy ànd ak nit ki kay mu neex nga toog kon bu nakkaree it nga war a toog mais xam nga ci lislaam sax loolu motif de divorce la ngay sëy nit ba mu mënatul lislaam autorisé na soxna si mu dem donc du moment où diine may na ko ko aussi. Hmm. ñun je pense que amuñu droit sànni ko benn xeer. mënoo ko ko bañal. problème bi mooy peut-être li ma mën yow nga mën ko keneen mënu ko keneen it la mu mën. Hmm. man peut-être mënuma ko. nit ñi ni ñu wuutee ni baaraam wuutee la ñu wuutee. kii mën na muñ lii vingt ans kii mënu ko muñ cinq minutes nit yi ñoo bokkul. Hmm. te comme l'islam autorisé na ko ko. yow mënoo am sañ-sañu ni ko force danga koy muñ. Mm-hmm. waaw parce que li ci deretu nit di ci daw mënoo ko dindi. Mm-hmm. nit yi li ci deretam di daw noo ko dindi de. ñi dañoo bari te wuute. xoolal bu nit ki dem ci lii bu demul woon ci lii tamit dem ci mm-hmm. leneen. parce que nit ki ni mu bindoo rek lay bindoo. li mu xam lay def kenn mënta tari loo xam ne jàngoo ko. foofu nag la nit ñi amee différence. foofu la sama yaay ndax di intervenir naan sëy dëgg. sama yaay nag nee na sëy dëgg la. Mm-hmm. du caaxaan de. Mm-hmm. ku ko jàppe caaxaan yow yaay caaxaan. sëy da di dëgg. te parfois dafa am ñoo xam ne dañuy fowe sëy. Mm-hmm. jàpp nañ ne lu xew rek dañu war a dem. seen bët bi suuf da ci nekk sax seen jëkkër bu leen ko waxee. ñu ñaan baat ñu dem. maanaam ñooñu dañoo jàpp ni li ñu ne fola la du dëgg. waaye sunu yaay yi nga xam ne ñoo nekkoon ci sëy. di subir di muñ. ba tey jii ñu toog seen piliyaan. ñu tege leen ay matelas yu nooy. Mm. di leen jëndal ay billets d'avion ñuy dem ak dikk. parce que dañoo toog moment bi nga xam ne war nañ bàyyi Fofana muy tumranke muy son doom ko ko toppatoo terewul seeni borom kër ñu leen di mbugal ñu ne duma dem ndax Fofana tax. Mm. damay toog muñ fekk fi màggu Fofana. Mm. damay toog muñ participer ci éducation Fofana. bugguma Fofana nekk agresseur bugguma mu nekk sàcc. te loolu man yaay maa ko mën def ci Fofana. mu muñ lépp loo xam ne dékku na ci sëy bi toog xaar. ba fa fan a ko. moo tax it barki Dembo Ndiaye nga yóbbu sa yaay màgg foofu. loolu de dëgg la da ko fa muñu. kaala ga de te sëy neex à cent pour cent amul de. loolu de am na. wallaay. bu neex à cent pour cent amul de muñul doo mu de. doo muñ. <laughs> mais nag kenn amul droit ni nit mu muñal lii wala bul muñ. en fait amuñu droit boobu ci nit côté boobu xam nga dafa xaw a sensible ci côté boobu noonu hmm. wàllum sëy waaw xam nga euh, euh, jigéen ñi dañoo bari te wuute hmm. muy si góor ñi également am na hmm. ñoo xam ne mën nañ nekk kawlaal ba boog lay waxee mën nañ toog une semaine seen yoon nekku si wala mën nañ toog deux semaine ñoom seen xel sax du ci nekk am problème am na ñoo xam ne xaar ñu ko leen ko bas ñoo lay song mais bu la yàlla nattoo nga am koo xam ne nii euh, mu def ko mu ñàkk koo def yoonam nekku si kooku mën na la muñal lu ne mën na des ci kër gi. mën na ko toog mais mais mais Mbaye loolu day am beneen question buy dugg su boobaa xam nga mooy ban muy alaaji. Mhm. nit ki est-ce que warut a yar aussi boppam. ci wàllum sëy. si. non sëy projet la dañ koy jàng. waaw non waaw loolu xam nga yar. yar sa bopp tamit. alaaji. Mhm. ci ne mbir mi mënuma ko muñ mënuma ko muñ. loolu mbirum bakkan la. Mhm. jégg naa dëgg de. mbirum bakkan la. Mhm. tey kon munoon nga yar sa bopp de tal sorte que sa jëkkër ba muy mën nga nekk ceeg moom mu ñàkk mën nga toog nekkaale ak moom loolu li ko fiy dund nee naa la li alaaji nettali nii kon jigéen ñu bari dinañ faatu yàlla ndax lu ñuy dund. am na te jigéen ñooñu ñu ngi koy dund. ñu ngi koy dund mais moom mënu ko dund. mais moom mënu ko dund mais amoo ci droit ni. ko mën a bañ a dund amoo ci droit. nga yéen xam nga l'islam charte la. xam nga l'islam la loo xamante ne nii tey charia moom moo fi nekk di ko jëmmal muy charte bi lii may na la ko lii dagan lii dagan na lii dagan lii daganul lii daganul lii daganul ci jullit d'accord mais dafa am à côté lu ñuy tuddee la moraam mhm. mm-hmm. am na loo xam ne nii sax charte bi dina la ko daganal mhm. nangu ko mais morale la koy tere kon donc loolu mooy tax ma ne la nit ki da ngeen ànd ci farata ak sunna mu takk la ngeen nekk muy mën mais ngàllawaay bu mënatul nga war ko mën a toog mu ñal mooy normal bi mooy normal bi beneen bi di mais su ko mënul ba tamit war na mën a yar boppam. de telle sorte que xam nga man non jugé ma ko man dama lay ay jub man euh, principe laay wax. Mhm. man waxuma dama koy jugé moom ndaw. maanaam yow li normal ngay teg. man li normal principe laa lay tegal ne kat lii de moom la moral nangu lii la euh, charia nangu waaye teewul ñun kat ñun nii nañ ko war a mën a jàngate. Mhm. kon boog tey nit ki war na mën a yar boppam de telle sorte que sur tous les plans ba tax na ne ak lu mënti am. ci àdduna ak lu mënti am war nga jiital ne mankat fii laa jóge fii laa yegg si nit laa nekkaloon nii nañ tolle woon ak loolu dafa am solo sa waay parce que bu fekkoon ne ñu ñëpp bu neexee rek nañ daw kon ñu naan wëkkat dina bëri loolu moo ah alaaj sëy du neex chaque jour xam nga femme bi mi ngi la naan sëy mooy dëgg ak a nekk dëgg ay dëgg xam nga xam nga xam nga Mame Toulaye sax daa junjuwaat akay dëgg daa junj wax ji donte ci benn côté bi la ko ba wax jëmale ko. muy jigéen war naa muñ di sëy ci métit ak ci bànneex. Mm. yëpp àndandoo gër njaboot biiram bi xës bu tuuru ba noppi. Mm. Mm. mooy la kenn laa waxoon laa mais góor itam mais góor itam dina toll foo xamante ni. boo gisee ñu bëri dañ naan dañ naan seen jabar donte woon nag loolu baaxul. mais am na ñu naan sax. même su ma leen ñàkkee des des samay samay njaboot. Mm. li ma soxla woon ci bonheur àdduna mooy gis sama ay doom mun naa lépp sama ay doom. Mm-hmm. cest à kon kenn ku nekk bàyyi nga xel ci ni. Mm. am na lu la mën a bàyyiloo ci sëy bi. lu mm-hmm. bokkut ak bànneex. Mm-hmm. bu dee góor doom. bu dee jigéen doom. tey ñaata ci ay góor ngay gis. seen jabar li jënt ci ñoom lu ñu mënta am. bu seen doom surtout doom bu jigéen. bu ñuy ñëw lu ñu bëgg. ñu def ko. kay bu ñu koy wuti kaw asamaan c' est à dire dañu koy wuti. Mm-hmm. léegi njaboot googu leen boole nag moom mooy remplacer bànneexu sëyub ndaw. Mm-hmm. Mm-hmm. wala moo tax ngeen toog fa. ay ndaw yoo xam ne bu leen neexee ànd so sali bu leen neexee dem Île du Saloum mais loolu ba ñetti doom. tolluwaay la rek. ba ñeenti doom. da nga koy dépassé sax mais bu doom xësee ba toll ni yéen. Mm. dootu leen ko man te doom yooyu dañuy continuer di nekk trésor. ngeen di xalaat nag. nu ngeen di construire avenir xale yi. Mhm. mais moment boobu. Euh, dootul bànneex dootul dara mhm. dootul bànneexu sëy dootul bànneexu sëy te nag kaay wax la bu fekkee jiite bu fekkee euh, maanaam encadré ngeen loolu leen boole noonu muy doom ji ngeen bokk. Mhm. ci mbégte moom mën ngeen dem ba am cent ans. voilà doo yëg ni kii. néew na doole parce que toujours dina la satisfaire ci wàllu sëy. wallaay moo tax wallaay alaay xam nga ko. bu dee parce que bonheur boobu ngeen di dund moo tax mais bu fekkee da nga jàpp yow yow yow daal sëy moom. Hmm, waaw hmm. moom moom moom guux guux la rek. guux guux hmm. guux ah non. da cee ne mën nga ko satisfaire si beneen. ma du ci mos a jóg. parce que ñoo ñoo ñoo ci ànd waaye dama ni bu fekkee nag bàyyi bàyyi ci xel ça vient naturellement. chaque jour ba cent ans. parce que am na bonheur boo xam moo moom moo moo jiitu. li ma li ma kii doon wax euh, suñ góor a sëy mos na ma ko jàngal ni ma sëy du du looy du looy provoqué. Mhm. da ngay bàyyi sa serveur sa xel moo koy moo koy commandé. transféré ko mu aw ci vaisseau yi mu jox la envie pour nga nga nga mën a sëy satisfaire ki ngay ki ngay. Mhm. mais bu fekkee da ko danga nga ko kii da nga ko précipité yóotu ko ngacc ko def ci sa xel. Mhm. amaana la nga say def. melu def du bari sax. dem guerre. station nga dëgg de. lu baax la nga say def du leer de. est trafic ñëwaat. ku fi ne. kooku. oui Aba. yee Aba ñëw na. ziar kañ nga ñëw. <laughs>